beneen bi mu joxe comme argument mu ne dañoo rejeter proposition de révision constitutionnelle bi nga xam ne moo waroon a dàq supprimer au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental dama bëgg ñu wax ma ci àdduna su fekkee ne assemblée nationale lépp lu jóge ci exécutif daf ko war a wote est-ce que kooku la nga xam ne moom mooy rôle mooy contrôler l'action du gouvernement est-ce dina ko def non seulement dàqu ko rek parce que dañ ko bëgg a dàq mais dañu joxe ay argument yoo xamante ni ku ko dégg xam ne lii dëgg la parce que au conseil des collectivités territoriales nekkul loo xam ne Macky Sall moo jëpp-jëpp rek créé ko référendum la d'abord le peuple sénégalais ñoo ko indi mais dafa jóge ci assises nationale yi nga xam ne le président de la de la république bi fi nekkoon muy Macky Sall bi mu nekkee président Union africaine dafa dem devant pair pairs ñu ne institution la boo xam ne nañ ko def ci fi nga xam ne mooy Afrique sow jal mu doon une institution boo xam ne sur le plan africain pratiquement ñëpp dañ ko waroon def seen donc institution bu mel noonu soo ñëwee da koy dàq c'est parce que politique politicienne ngay def beneen conseil économique social et environnemental mais nañ ma wax ban réew ci àdduna bi moo amul conseil économique social ba pare président méngoog jamono président Macky Sall yokk ci environnemental parce que dafa bokk ci yi nga xam ne moo méngoog jamono ñu ne lii li ko lal mooy politique parce que su fekkoon ne ñoom bëggoon nañ ko supprimer dinañ indi non seulement seen projet mais dinañ ko indi ci session ordinaire mais dañu bàyyi ba session extraordinaire ñu doog ko indi donc muy deuxième argument bi nga xam ne du dara lu bokk ak li nga xamante ni mooy am.